bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal di amaat mbégte kontaan te ñëwaat ak yéen seen tafsirul quranul karim xam ngeen ne démb ñu ngi woon ci fin suratul nuux tey ñu ngi ci suratul jinn suratul jinn màkk la wàccee mi ngi am ñaar fukki aaya ak juróom ñett saar bi nag ñu ngi ko tuddee suratu jinne yi ndax euh, jinne yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam da doon jàng alquran jullik suba la woon ci fi ñuy wax euh, batnu nax la mi ngi nekk ci diggante màkk ak taif yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy jàng alquran nag ci la jinne yi ñëw dégg jàng bi moo tax eh, am na fu yàlla di wax wa iz sarafna ilayka nafaram minal jinn yónni nañ aw mbooloo ci jinne yi jinne yi nag xam ngeen ni jinne moom mooy jommalaate jinne moom mooy jommal doom aadama yeeg ñëpp waaye dañoo gis nag lu leen jommal mooy alquran bañ ko déggee dañoo jommi dañoo waaru ndax xamuñu woon eh, ne lii wax ju mel nii am na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 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك برب ربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بحشا ولا رهقا يلا سبحانه وتعالى mi ngi wax ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne uxiya wax yoos na ma maanaam yàlla wax yi ma na yàlla wax yi na na lan annahu naka moom lii mbir tey mbir annahu damir la sha'ni la istamaa déglu na nafarun aw mbooloo minal jinni si jinne yi ba ñu dégloo faqaalu ñu ne inna ñun dey sami'na qur'aanan ajaban déglu nañ alquran ju yéeme kon jineye jommi nañ alquran jombal na leen yàlla mu ne muhammad sallallahu alayhi waxal ne wax yu nañ ma ndax loolu bu ko yàlla wax woon du ko du mën a xam moo tax yàlla moo ko ko wax ne aw mbooloo si jinne dañoo ñëw dima ma déglu ba ñu dégloo nag ñun dey dégg nañ qur'an yoo xamante ni ju yéeme la dégg nañ Qur'an ju yéeme Qur'an joo xam ne yahdi day jubal doomu aadama bi nga xam ne daf koy dégg ila di jëm ci njub fa aman naa bihi ñu gëm ko jinne yi ba ñu déggee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng alquran rek dañoo dañoo gëm ñu ne fa aman naa bihi ñu ne ñun day bis ni ki tey ba ñu déggee ak alquran gëm nañ ko ndax lii di waxu nit lii waxu yàlla la te kat wala nushrika te dootuñu bokkaale bi rabbinaa ci suñu borom ahadan kenn dootuñu bokkaale ak suñu borom kenn gis nga lan lañu fi jëfandikoo lan day dàq mooy li muy dàq dootul ñëw moom waaye moo tax ñu ne wala nushrika ñun dey dootuñu bokkaale ginnaaw tey bi rabbinaa ci suñu borom ahadan kenn yàlla daal ndekte moom kenn la ñun dootuñ ko bokkaale kenn waaw ñu ne wa annahu naka moom li mbir tey mbir taala kawe na jaddu rabbina màgg suñu boroom suñu boroom màgg na te kawe waaw maa taxaza moom day jàppul amut sooxibatan soxna wala wala dan déet doom suñu boroom de amul soxna amul doom moom kenn la ndax tax ñu wax loolu mu ne wa annahu ndax moom kaana nekkoon yaqulu di wax huna ki nga xam mo gëna doye di suñu muy iblis allah ci yalla shatatan ay nar jib eh, iblis da doon wax ni da len doon wax naan yalla mom dafa am soxna am ay dom waye ñom bañu deglu alquran ñu ne ki ku kawe la te mag amul soxna amul dom iblis da doon wax rek pour jaxase len limu doon wax rek te dara du ci deug mu wa an ñun jinne yi wax batay de waman wor nañu ne allay yaqula wala yaakaaroon nañ ni allan yaqula du wax mukk al insu doomu aadama yi wala jinnu ak jinne yi alallahi ca yàlla kasiban ay nar ñu ne ñun de foogoon nañ ni jinneeg nit du wax ay fen jëmale ko ci borom bi subhaanahu wa taala dal naan yàlla dafa am doom ak dafa am soxna yaakaaru ñu woon ne kenn dina fen lii ko yaakaar wa annahu nekkoon na kaa wa annahu lu fi nekk kaana nekkoon na rijaalun aw mbooloo ci minal insi si nit ñi yauduna ñi dem di utik ndimbal bi rijaalin ci aw nit aw aw góor minal jinni si jinne ya waaye fa zaaduhum ñi dolli leen rëxaqan ak xam nga nit ñi dañ doon dem di wekku si jinne yi di leen laaj jinne yi di leen waxal waaye ak di leen sàkku ndimbal ak di leen eh, jaamu léegi nag nee na bañ defee loolu dañ leen a dañ leen a dolli ak ndax jinne yi dañ naan dem ci kaw asamaan di déglu li yàlla di wax ak la muy dogal su ko defee ñu wàcc ci kaw suuf nag di ko wax njabarkat yeeg yooyu ñu àndandoo nag di njabar nga defee ne li ñuy wax dëgg la waaw ah, ak naan yàlla am na doom ak am na sox soxna yàlla nañu yàlla musal ci loolu léegi nag njabarkat yi ñoom dañ daan jëfandikoo jinne yi ci yu mel noonu nag su ko defee dañuy xam la ñuy wax waaye jinne yi nag léegi nag loolu boobu pouvoir amatuñ ko wa annahum ñoom day zannu jot nañ ñoom yéeféer yi nga xam ne ñooy nit ñi kama zanantum comme ni ngeen jortee yéen jinne yi allay yabaasa allahu ahadan na yàlla moom du dekkil kenn ginnaaw ba mu deewee ndax bu ñu leeroon ni ñoom bu leen leeroon ni ku si faatu dinañ la dekkal kon di nga xam li ngay wax di bàyyi xel ci li ngay wax bu baax waaye nag jinne yi ak yéeféer yi nga xam ne ay nit lañ ñoom day dañoo yaakaar ni ne yàlla moom ku mu xas rey rek dootu la dekkal ku dee rek jeex na ñoom loolu la ñuy wax léegi ñu daal di nag wa an naa ñun lamas naa làmb nañu asama asamaan si fa wajat naaha ñu fekk ko mu muli at mu fes dell xarasan ak ay garde ay malaaka yu baree baree bari ñoo nekk ci asamaan si di ko garde <clears throat> shadidan yoo xam ne ñu tar lañ wa shuhuban ak i jum shuhub mooy jumi safara mat mat ay girini mat jumu yu mel ni ay safara léegi moom la ñuy jëm fekk ko ba ñu demee asamaan di xooli ba xam lan moo xew dañoo fekk asamaan si fees mm. dell ak ay malaaka yu koy garde ak ay jum yoo xamante ni jumi safara la ba mënatuñoo déglu foofu mënatuñu faa nekk ñu ne te bu njëkk ba avant yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw islam di ñëw bu an naa ñun day kun naa nekkoon nañ <clears throat> naqudu di toog min ha ci kaw asamaan sa maqaayida di ut ay toogikaay yoo xam ni dañ koy toog pour déglu li sam'i ngir déglu dañ daan ñëw di déglu di xol xibaar yi nga xamni moy wàcc mi waaye legi famay yastami al aana léegi da ko déglu yajid lahu di nga fa fek shihaban ay jumi safara yo xamni rasulan yu ñu toppal togtala la nga xamanteni ni bu ñëw rek mu lay dal legi nak kon li da fay wone ni njabar kat yi jinne yi nga xamni ñoo leen daan wax legi mënatuñu amatuñ fuñu jëlé li ñu leen di wax kon li ñuy wax lépp ay fen la waaw ndax jinne yi ñoo laan leen dimbale ci loolu nii njabar léegi nag Mohamed wàcc na njabar moom amatul daq nañ ko mënatuñoo déglu tamit li nga xam ne lañuy wax lu ñu waxti rek ay fen lay doon ñu ne wa an naa ñun dey laa nadri xamuñu acharru ndax aw ay urida lañ bëggal bi man fil ardi ñi nekk ci kaw si biir suuf am araada bihim wala seen borom dafa leen a bëggal rachadan ab njub ah ñun de xamuñu la xew asamaan si ñu ko armee xawma ma day suñu boroom ñoom jinne yi ñooy wax ba tey de ndax ak ay la yàlla bëgg si kaw suuf wala yiw la bëgg si ñoom ak jub ñu ne waaye naa nekk si ñun min naa soolexu nañu baax ñun ni ñu amee ni ngeen amee nit ñi ay nit ñu baax ñun tamit jinne yi noonu la ñu amee ñu baax wa min nekk si ñun tamit duuna zalika walis loolu kun naa nekkoon nañ ah, kun naa nekkoon nañ poro iqa di ay xeet xidadan yoo xamante ne nii yu wuute lañ ñi dañoo nekkoon ay ñu wuute ñi baax ñi gën a baax ñi bon comme ni mu amee si nit ñi noonu la amee si ñun jinne yi wa an naa ñun day zonan naa jot nañ allan nujizallaha ne duñu duñu mën a jaaxal yàlla ñun de wóor nañu ni yàlla moom bu ñu jàppee duñu raw waaw mënuñu koo tëdde mënuñoo tëdd yàlla de fil ardi ci kaw suuf si wala nujizahu mënuñu ko të haraban donte kon dañoo daw même bu ñu dawoon sax duñu tey yàlla yàlla moom <clears throat> moo ñu bind moo ñu sàkk kon nag mënuñu koo daw kon nañu def lu baax rek koo xam ne xamoo foo koy boo koy boo koy daw foo jëm te foo munti dem mën na la faa fekk kon kooku moom def lu baax rek moom mooy li war ci yow <clears throat> kon jinne yi ñu baax lañ ñu ne wa an naa ñun dey lama lamma sami'ana al huda ba ñu déggee njub te muy alquran bañ ko déggee rek aman naa bihi ci saase dañ koo gëm dañ koo dégg rek gëm ko ndax xam nañ ne lii du waxu waykat du waxu njabarkat du waxu doomu aadama waaye lii waxu yàlla la kon jinne yi ñu am xel lañ ñoom dañu dégg alquran rek gëm ko saxal ne yenent bi dëgg la te lii wax ji ca yàlla la bàyyeekoo ñu ne fa may yumin bi rabbihi képp koo xam ne da gëm sa borom falaa yaxaafu doo ragal baxsan li nga xam ne mooy euh, euh, ñaawteef wala raxaqan wala ak mbugal ëllëg yowmal qiyaam waaw képp koo xam ne daal dangaa ragal yàlla dootoo ragal ak ak baxsan mooy ak wàññiku say say tiyaaba dootul wàññeeku wala xaqan du jaaginu tooñ yàlla du la du wàññi say yu baax waaye du doole tamit ci say yu bon yàlla moom dafa nekk koo xam ne commande la moo tax ñoom ñu ne ba ñu déggee ni alquran ji wàcc rek ba ñu ko déggee dañ koo gëm te ku gëm yàlla nag moom dootoo ragal wàññeeku dootoo ragal yokkute yàlla du la wàññil say yu bon waaye du yu baax waaye du la yokkal yu bon yi nga xamante ni moom nga doon def kon jinne yi moom wax dëgg yàlla alxuraan ji dugg na leen te dégg nañ ko gëm nañ ko kon euh, ni mu amee nit ñu baax noonu la amee ay jinne yu baax noonu la amee jinne yoo xamante ne nii dañoo topp alxuraan bëgg ko jur bañ ko njëkkee dégg rek ñoom ci lañu waaru ci lañu gëm suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam kon lii lañ leen indil tey ci tafsir bi di leen jox dig daje incha allah suba ak jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm defal leen ko defal ko mboolem jullit di leen ndokkeelaat ci weeru koor gi di wax ne ñaari fan a ci des yàlla na yàlla may ñu eggale ko ak comme niñ ko commencé lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.